jeunesse bi nga xam ni jeunesse désespérée bi amul waa APR quatre vingt dix neuf pour cent waa PASTEF lañ quatre vingt dix neuf pour cent sénégalais yu mere nguur gi lañ ñoom ñoo ci dem ñu leen di vider di vider suñu jeunesse di vider suñu potentiel jeunesse bi ñu gën a dem ba jeex donc loolu mooy projet bi donc ñoom ñooy financer gaal yi mais loolu danaa ci gën a ñëw nag. parce que loolu dossier la boo xam ni yor naa ko yegsi na ci man mais Pape Malick Ndour la Pape Malick Ndour et son ministère ñoo koy financé pour ñu vider le plus rapidement possible ces jeunes la ñu jeex balaa ñoo songu élection yi mais loolu du woon sujet wu tey bi dama leen rek expliquer ngeen xam bon lu ma ko naroon tëjee lii la waxoon naa leen ko aussi newoon naa leen Amadou Ba Seynabou bu ñuy feneloon fii jàpp leen di wax waxi ay naxasa xandak naan ñoo génne document yooyu waxoon naa leen ni ñun dóor nañ leen pression ba ñu bàyyi leen xam nga waxoon naa leen ko aussi leen di bàyyi xel nag ci li ma leen di faral di wax de xeex bi ñuy xeex nii du xeexu nen de xeex bu saf sàpp la bu leen dal barke alxuraan billaahi wallaahi wa taalaay gouvernement amul bés bu ñuy yeewu te duñ ma jéem a corrompre gouvernement sénégalais bi amul bés bu ñuy yeewu te duñ ma jéem a corrompre mais man nag wax naa leen yàgg naa leen ko wax ne je suis incorruptible incorruptible duma ko ñuy corrompre ba ci ministre bu mujj bu mujj bi ministre bu mujj bi <laughs> euh, ministre de euh, ministre de l'éducation la ministre mooy mooy mooy aan xawma lan aan aan bu jaaroon kuddu sàcc fa sàcc yi métti jot naa message am bi dama ree ba sonn quoi <laughs> mais baal ma kii baal ma continuer ko nii quoi gars yi son sonal naa leen nguur gi xaw ma ku ñuy ku ñu dul ku ñuy fàtte mais man xaw ma ku ñuy dul fàtte <laughs> mais man duñ ma fàtte xaw ma ku ñuy fàtte mais man duñ ma fàtte <laughs> gars yi sonal naa leen de barki alxuraan chat Omar Anne ñebbe non dama déglu message am bi dama daanu dama reeba xëm benn waay bu dem ci moom quoi benn waay bu dem ci moom di ko ñu bokkal quoi di ko wax pour ñu jéem a xool nuñ def ak man quoi oui mais moo laa doo leen jéem a xool nu ngeen tëjee gémmiñ gi affaire yooyu quoi <laughs> kii na ko waa ji ànd na ko Cheikh Omar ànd na ko mais tu sais, ce gosse-là, il ne incontrôlable. Il n'est pas. Euh, qui quoi euh, Il n'est pas crédible. Là. Il n'est pas crédible. Il est incontrôlable, ce jeune-là. Il est incontrôlable. Il nous a combattus. Il nous a Après, ah. Il n'est pas crédible, ce, ce jeune-là. Laisse-le comme ça. Ouh, bah. Vous dites le message, mais a <laughs> man sama jiw bi ñaaw na de <laughs> nee nee nee na ko man loo ma jox tamit yàqum xaalis la parce que <laughs> parce que <laughs> man nit mënuma ko romb xeex naa leen ba jëlee leen fii euh, bu newuloon sama portable bii sax dama leen koy tegal quoi dama réew ba sonn <laughs> nee na nee ko wuu jeune là il est il n'est pas il n'est pas crédible nit mënul liggéey moom. boo ko loo ko jox tamit day day xeex te xamuñu ni man xeex bi dama ko bëgg dama ko bëgg dama ko gëm dafa ma toll fu sori barke alxuraan xeex bi dafa ma neex a neex a neex a neex boo xam ne xeex bi soo dund la dama koy dundee di leen xeex ci jaamu yàlla laa ko def gis nga ponk islam la di xeex Macky Sall ak son gouvernement ñoom dañoo xamul ni ponk islam la kenn du jëndee ponk islam xaalis munoo jëndee julli nga jëndee ko xaalis julli munoo ko jëndee xaalis natt asaka doo ko jëndee xaalis weeru koor doo ko jëndee xaalis gi xeex Macky Sall ak son gouvernement diine la ponk laa dama ko boole mooy sixième ponk islam yi dama leen di xeex ba njóge fi allah kulli àll du dara loolu Cheikh Omar am dama ne maa lay waxal dama ne man la ngay wax mooy dëgg jéem a jéem a perte temps la jéem a nax perte temps la te xeex leen diine diine laa ko boole ci diine islaam ci ponk islaam laa ko boole man ba bu ngeen fii jóge dinaa leen xeex noppaliku leen noppaliku leen dégg nga voilà xaw ma ministre lan la nag bu ma dégloo audio ba dama ree ba xalangu quoi ma ne ma il raison quand même <laughs> neera du ci xam naa waajur ko bëggoon dóor neera du ci dugg ne na nañ ko nañ ko indil keneen mais pas Mollah Morgun du ci dugg <laughs> parce que sama jiw bi ñaaw na de <laughs> gars yi daal gars yi daal dañ may moytu daal dañ may moytu ni rage nañ ñëw bu ñu nañ ñëw bu ñu nañ ñëw nañ ñëw rek voilà en tout ñun moom boo ñu joxee dañ koy jël jënd ko cocktail molotov de moom kay dañuy jox rek ñu séddale ko gang yi cocktail molotov ay ca ay ca root leen root <laughs> leen café Touba leen gars yi xaalis xewal ñëw na root leen café Touba gi <laughs> ñu feebar nañ faju nañ faju ji en attendant ñu wérul nañ faju ji ñu war a joxe dépense nañ joxe ay ca ay ca ay ca armé wu leen ay ca nañ ci root ay café Touba gu bare bare bare bare bare ñu waajal lañ seen bopp ñu ñu amul lu ñu lekk nañ ci lekk ba suur ñu en attendant ñu ñu waajal ñëpp seen maam bu baax <laughs> alors ki kay lay jël cocktail leen ci ñoom seen bopp faju ci lekk ci ba suur naan ci ba màndi cocktail leen ci <laughs> jëlee leen fi par force <laughs> Cheikh Omar Anne ñëwal waay ñëwal non non non je ne suis pourtant pourtant lu mu lay wax dëggal grand boobu lu mu lay wax dëggal de au leen trahir ñëwal ñëwal du leen trahir grand du leen trahir oh, sur la la sur sur sur les bijoux de ma mère sur les terres de mon père du leen trahir am telling you du ma ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal loolu grand ñëwal waaw ma ci suuf ma ci suuf ñu xool amul benn problème waaw ma ci suuf du ma la trahir du la trahir waaw suuf ñu xool rek nu ñu koy lijjanti amul benn problème incha allah donc bon gars yi comme noo leen waxee rek nii lañ koy tëjee quoi le combat continue fulla fayda fit fagaru fas jom fayit fipp farata la point fulla fayda fit fagaru fipp farata la yépp la fayit fulla fayda fippu fagaru fayit waxoon naa leen ne leen ne leen euh, Amadou Ba ba ñu doon jéem a sosal ak ki nga xam ni mooy Seynabou ba leen doon bugg a taqal voilà waajaa ngi ni kii mooy financé euh, mu ngi nii do xaj bu dee bi booy bi mooy financé gaal yi kii mooy financé gaal yi gaal yi ngeen di gis c'est gratuit ñii kii moo koy subventionné moo koy subventionné ministre bii de la jeunesse mooy subventionné gaal yi gratuitement fay borom gaal bi jënd gaal bi fay ko transport bi mu yóbbu jeunes yi ci quartier populaire yi quartier yi nga xam ni amuñu fa yaakaar ni mu dañ fay gañe te dañ fay perte perte yu am doole ñu jël jeunes yi transporter leen dugal leen ci gaal yi pour ñu daw comme yu mel ni ay Parcelles ak ay Kër Massar ak ay ñuy rawale jeunes yi ñii dee ñii yegg ñii et cetera et donc kii mooy rawale jeunes yi di fay gaal di subventionné gaal yi voilà donc euh, encore une fois di remercier je pense que mu ngi yëngu ba léegi ah mais gëj naa ko dégg nag quand moom mooy euh, mooy Amadou Ba Amadou Ba Pastef gëj naa ko dégg trop ah wooy euh, na nekk ci lu mu nekkoon rek bu mu bàyyi ah. kenn du ko fi jàpp kenn du ko on est là on est là Amadou on est bañ la bëggee jàpp bugg la fenal la nga sosal taxaw nañ ci ils t'ont libéré parce que yow doo médecin doo pénitencier tàppe woo bindoo euh, lu mu euh, euh, doo médecin bu bu bind donc buñ la buñ la bëggee jàpp ci loolu moom mënul nekk moo tax taxaw nañ ca yow ak Seynabou ñu bàyyi leen ngeen dem seen yoon ok ma waxoon leen ne leen ki nga xam ni mooy euh, directeur pénitentiaire bi dik woowoon nañ fa ay ñi nekk ci biroom di liggéey ñi nekk ay gendarme ak ay pénitentiaire ci administration bi ñoom lañ doon enquête dik xam nga waxoon naa leen ko yéen a ngi fàttaliku loolu ma leen waxoon man leen ñoom Amadou Ba dañ bàyyi nañ leen moom ak Seynabou mais ki nga xam ne mooy directeur pénitentiaire bureau ñoom ñëpp tey yóbbu nañ leen dikk di leen enquête pour xool li génnoon lettre boobu fan la génnee waaw jot nañ ci jàpp nag jot nañ ci jàpp waaw mooy fuite document médical bi ñu doon bugg a jàppee ay ñoo xam ne seen yoon nekku ci woon ma ne leen léegi nag ñoom dugg nañ ci jàppante seen biir ba bañ leen doon enquête pénitentiaire donc jàpp nañ inspecteur Idrissa Sow mu ngi moom ci bureau ba lay liggéeyee inspecteur bi ci bureau ba ñu doon tàppe euh, document ba mooy document médical bi ak ak kii bi euh, euh, directeur pénitentiaire bi Babacar bu mu bindoon tap ñu doon tàppe donc jàpp nañ ci kii nga xam ni moom mooy Idrissa Sow di inspecteur jàpp nañ ci adjudant Issa Njonn jàpp nañ ci ñett ñett lañ ci jàpp donc jàpp nañ ci Idrissa Sow inspecteur jàpp nañ ci adjudant Issa Njonn mooy ñu doon tàppe affaire yi rek gars yi ko doon tàppe jàpp mooy euh, mooy fuite lettre bi mooy sur l' état de santé de Ousmane Sonko donc jàpp nañ ci Idrissa Sow waa DIC la gis nga garde à vue à la DIC waxoon naa leen ma nga DIC donc euh, jàpp nañ ñi nga fa newoon ña fa nekkoon donc euh, juste lu tax ma leen koy mooy. renseignement yi ma leen di wax de lañ ci bàyyi xel parce que man dama lay damay suivre affaire yi damay suivre affaire yi ñoom bu ñu jàppee fii ay ragal lañ nag gis nga gouvernement bi tàppet yu mag lañ yéene leen gars yi leen ragal nii rek wala ngeen jàpp ne dara c'est des géants au pied d'argile suñu genre gii rek lañu ragal sama genre gii rek lañu ragal amuñu fiddee parce que alxuraan billahi man damay yëngal république man mi ngay gis ne sama tuutiwaay ak mu ñàkk sama ndey ak sama baay damay yëngal république bi billaahi wallaahi wataalaahi ponkal yi fii bandi bandul yëpp boo leen tuddalee sama tur ñu dinañ